sëriñ Bachir Mbacke xaadim awa ba seede jëf bi abi Abibu Mbacke di wax ne jaajëf lañu koy wax ne ku deful dara doo ko dégg. Euh, sëriñ Fallou daana wax ne nit ki bu la defee teraanga baadool ak ak ak ak nit ku yiw yaa euh, la teralee da nga koy sant ba ñëpp di gën sant nga ko nga bàyyi ko yàlla ko binum fay ko waaye baadool loo ko defee ci teraanga day yor le xam ko di gën maa ko yooyu dara kon ñu ngi naan jaajëf jaajëf nag bi xaw baat bu ko bu ko bu ko ëpp su ma def te baat bu gàtt la waaye ku jëf doo ko dégg kon jëf na ko fu mu ko di jëfee mm-hmm. dana àgg ci loxo yi mu àgg mm-hmm. ndax ni ko suñu affaire waxee rek barab bii moom mm-hmm. ku yàlla nati bi doo fa def dara moom ndax barab bu sell boo xamante ni eh, ndimbal yàlla rek moom moo fa mën a àgg si nit waaye du càggee pexe kon bu ko defee àgg ko jaaree ko sa loxo bi nga indi ko ñoom ñii te ñoom ñi ne wax ne ñoom yéen dara warul leen ci kenn yéen ñu ko ne war leen dara ci yéen ndax ñun ñëpp ñoo ñoo leen war taxaw ci suñu lépp ndax fardu kifaaya la waaye nag yéen a taxawul te ji bu kenn taxawutoon barab bi day day naax saay wala mu sànq te loo waruñu kon nag bu ngeen bàyyi seen soxla yi bopp ñu ami soxla ngeen ami soxla ngeen nangu bàyyi seen soxla te yàlla tax féete ñu fi ñu war a féete kon jërë ngeen jëf yàlla na suñu tuwaa fay sëñ Bas ñu ngi sant bu baax di gërëm te dañu ñaan yàlla def lu mag àgg la fi nga jëm Xadim ndax nii rek la sëñ tuwaa bu jikko la dañuy wax na nga jégal te jël loo jariñe loolu mooy mbirum sëñ bi te yàgg ci ndax foo gisee lu baax màng ko indi ko Tuubaa te sëñ bi lu baax lépp yàlla da ko màng indi ko loolu ku neex ku naqari dana ñëw wërsëgoo si afi wax léegi ñii ci fa la ñii ci ci ci ci ci mooy yàlla am ñoo xam te bu leen tuddee ndaw rabin wala ñu tuddee ay ay football ay nangam ay milliards lañ cee def waaye yàlla mooy ci ñaar dërëm ndax xol bee nanguut ndax comme léwut sellut fu mu ko xam ko kon nag nit ki bu la yàlla dimbalee nga ma a jëf dara te jëf ko fa nga xam ne boo ko jëf wër na yàlla nangu na ko te ku yàlla na dimbal dafa def dara moom Tuubaa gii moom rawatina dëkk barab bi ñu nekk na moom kon ñu ngi sant bu baax di ko turi sant ci turi ti ci kanam ak ñi ma ko bokkal ñëpp waaye di ko suñ tur Sëriñ Muntaxa ndax moom du caa jëf moom ko jëfal ndax kenn la ci ñun ñi waaye kenn la ci Muxaddamatul Xidma bi eh, Muxaddamatul Xidma ak Tuubaa ci kanam kii Muxaddamatul Xidma mooy ndey Tuubaa ci kanam rek eh, ndax ñoom li ñuy jëf eh, lislaam yëpp di ko jëf yëpp di liñ bëgg ci mooy mooy Touba liñ bëgg ñu am ko hmm. te ñoom ñu ngi ci te li li li xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy fondation Touba te mooy alxuraan hmm. te mooy kado yi nga xam mooy téye dëkk bi ba dëkk bi wute dëkk yëpp ndax li fi jàng ci alxuraan jàngu fenn te feeg ñiy jàng alxuraan fii nag liñ bëgg lépp di ko am hmm. kon ñoom ñuy féete barab bi eh, setul ñu li nga xam ne mooy li gën a rëy ci yoonu murit te murit boo xam ne ku ñu doon ka jox ci ci ci jumaa ji doo nangu doon defu ci fanweeri dërëm doo nangu loolu mooy sëñ bi kon Mbàkke ñu ngi sant baax di la gërëm tey ñaan suñu affaire di ko gërëm moo tamit Ablaye ñu ngi koy sant di ko gërëm te ko ñaan na gën a góorgóorlu yàlla ko yàlla fal cat ndax cat yàlla ñu ci yàlla musal day topp ni ba ci bàmmeel ni faatu ñoo jët ñaanal ko yàlla ko yàlla fal cat dimbale ko waa muqaddimatul xidma ñoom it delloo njukkal El Hadj Abdoulaye Dia sëriñ Afi Bousso di wax ne jëf ji du gulet di sant nag bu baax ak gërëm ndax bépp itte boo xam ne mas naa rot fii ci bar jumaa ji wala ci ñi fi nekk bu duggee sa nopp fa saasa dugg nopp aw dañ koy defee sax nu kawe su su njortu mu jëf yu bari yoo xam ni taay nooñu nekk di ko lim bëkk dem lañuy jëbal sëñ bi caméra yi nga moo ci mujj ànd ak koor gu jot noonu la sëñ Bass di doxe noonu la Abdoulaye di doxe kon ñu seeral loolu ne loolu loolu la seq ak ñoom nun nag dañ ci seere waaye jëfuñ ngir nun sëriñ bee tax muy jëf waaye dafa def ni barab bi noo fi nekk kon lu fi waaye jëf ñu xam ko ñooy waa jumaa ji itam lu waaye defal ñu gis ko kon fokk ñu seere waaye pay gi moom nikkul ci nun ñaan gi itam danañ ko ñaan ndax ñaan lañu am waaye xam nañ ci biir ñaan gu nangu la nekk ndax li ñuy def ko taw tawfeex ñaan gu nangu mënoo ko def ndax barab bi ñi ko seq bari na waaye du ne nag ku neex nga ñëw sa alal dem ci damay wax ne xaalis wërsëg la waaye loo ci bëgg a def yu wax def ko wërsëgu boppam la daf bari ñoo xam dañoo tiim xaalis waaye moomuñu ko duñ def ci jàkka duñ def ci daara duñ def ci leneen dañuy bàyyi ba faatu seen borom moom ko def ci la leen neex imma alayhi wa imma lahum waaw ñoom nag mel na ni niñ ko bëggee lañ koy defee lu ñu bëgg a def ci lu baax rek amu ci gàllankoor kon loola firnde firnde la li ci li sëñ bi wax ne kun ma ashida tafal mitlahu waxaalil man shida taqdu shaklahu lekkal la soob te xam ne ci lool lay rees ku la yéem xartaalo xartool moom bu la baaxam yéemee la nga mel ni moom bu la bonom yéeme la nga ko sëñ Tuubaa dafa daan wax ne addi ñett la lu xarab lu lënd lu dagan lu lew li bëg bañ danga ko toppee yàlla lu ci neex def lu lënt li bëgg bañ danga ko foyee lu aram li bëgg bañ danga ko mooy yàlla am na ñoo xam ne am na millions du jeex waaye seen dërëm du dem ci dem ci yàlla te bu ñu am po rek ñu génn am yooyu du jeex def ci lu ko waral alal ju lënt ci moo bari ku di ñëw di la asli kon nag ñi ngi daal sant sant nag mënut a weesu sant ñi ngi ñaan li ma waxoon léegi ñàngu ñàngu nangu la ñu nekk waaye dañu am lu dul ñaan fokk waaw kon ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi ñaan yàlla na suñu borom nangu jëf yi nangu na ko tax bu ngeen wutoon du ci barab waa waaye yàlla na suñu borom sàmm leen yokk leen. ba li nga xam ne taxaw na ngir bokk liggéeyal maam ju tedd ji moom Cheikh Bachir ànd ko bokk bépp tari bi boo xam ne dañ la xëcc ndax moom ku mu jox ku nekk lam ñu xëcc mooy li jëm ci liggéeyal sëñ bi waaw ku mu àndal ku nekk lam lay xëcc mooy liggéeyal sëñ ndax moom ca la ne te te dundaa fekk lam nekk ca la yóbbu waaw kon ñu ngi koy ñaanal doxinam wii yàlla bu am benn fakk yàlla ko yéen ni nga ko bëggee ba ko ci kanam maam ju waaw ñu ngi ñu lay sant di la gërëm di ñaantam suñu cant ak suñu ngëm nga jot nga jotlu ko Ablaye waaw ne ko moom itam ñu ko si di ko ñaanal waaw ni ñu ko waxee léegi ak mbokk mi nga xam ne moo nekk fii maam Anta ja nga xam ne lu ci bari mooy coordonné ak ñun di laaj mbir yi nu mu demee waaw moom itam ñu ngi di ko ñaanal moom itam ndax daf maa waxoon eh, Ablaye daaw ne ma lépp lu ngeen di sant rek ak lépp lu ñaan ñaa jëti leen ci maam Anta waaw ba tax na ko moom itam ñu ko ci bàyyi xel bu baax a baax waaw ab defarkat la daal waaw moom kon kon kon Ablaye dafa am tawféex yi ña ay ay defarkat seq ko waaw am na tawféex jooju ndax maam Anta nga fee sëñ bi Chirou nga fii kooku fi Ablaye la moom waaw <laughs> yàlla dafa ko tawfee usunul xayri ba nga xam ne matul lu ñu ko wax dana ko def kon loolu uh, ñu ngi koy ñaaral suñu borom saxal ko ci te musal ko te nangu jëf yi lu ko jiitu El Hadj Abdoulaye jaajotoon dugal loxoom ci jëf yi jëm ci jumaa ji juróom-ñaar fukki caméra ak juróom-ñett di ay caméra de surveillance ngir jàppale Muqaddimatul Xidma nu sàmm kaaraange gi ci biir jumaa ji ak ci morgue bi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi